بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يوصف غيره بالكمال ولا بالجلال والجمال والصلاة والسلام على الكنز الأعظم وعلى آله وأصحابه الكرام البررة ورضي الله رضا خالدا عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة إخوة الإيمان والعقيدة في كل بقعة من بقاع الأرض asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ñuy déglu ci seen rajo Safina FM quatre vingt góor ak jigéen mag ak ndaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa ci mbaaxam mu boole ñu baal di ko ñaan li nu koy jaamu mu nangul ñu ko ca na mu tollu te bañ koo nangoo ci ni ñu toll ñun ju ko ñaan it bu ko nangoo mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi seen mbokkum taalibe alxaaji abdul Aziz Fall mo delu ci wat ak yéen ci dara ji ci sen waxtanu tasawuf le soufisme ki nek ci technique bi di sunu mbok di Omar samba ñoo koy ñaanal yàlla tawfiq di beral nuyoo ak ziyaara ak ñaan suñu directrice su bopp soxna ñu mobba ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysiir ak mbooleem ñi koy jàppale di nuyu di ziyaara di ñaanal boroom kër gi ci alxaaji Cerno Xamidu Baan ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysiir ak najaax fa tabaarakallah ñu ngi ko waxe woon ci sunu waxtaan bu mujj bi الإنسان doomu aadama ba keroog muy nekk nit ba keroog muy nekk yonent ba keroog muy nekk xalifa yàlla ci kaw suuf parcours bu gudd la bu jafeñ waaye yi war a daje yépp pour mu mën ko yàlla teg na ko ci loxoom doomu aadama waaw kullukum min aadam wa aadam min turaab kooku ñëpp ci bokk yam waaw ñun ñëpp sunu cosaan moo di maam aadam alayhi cosaanam suuf la ban bu defee nag cosaan bu mel noonu su ko nit amee di ko fexeel ba jóge ci aadamiyatul aadamiyi dem ci insaaniyatul insaan sa cosaan ni mu tuuteeg ni mu xeeboo yàlla defal na la loo xam ni mën nga ci jóge jëm ci nite ba keroog ngay forge sa personnalité ba yàlla mën a compter ci yow yàlla mën a compter ci yow ñi amul boobu volonté pour toxoo foofu toxoo fi mëtadi ñëw fi mët yàlla mën la wóolu yabal la ci ñoom nga nekk mursal nga dem ci risaala boobu di ca liggéey di ca liggéey di ca liggéey ba yàlla solol la manto ni la bés ni ki tey yaway sama xalifa ci kaw suuf yombul su ko defee nag fay laaj ñu jël doomu aadama dugal ko ci école yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dugal ko ci école yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam formé su génnee rek mët li mu doon moom nit te tabaarakallah ahsanul xaaliqin ndax dañu gis ñu jaar ci ekoolam mu former leen ñu génn mët lañu mët lu tax ndax sëriñ Cheikh dafa wax ni soo dee njabootu yonent bi boo xëyee nekk surga li yàlla di xaar ci yow mooy balaa ngoon nga nekk sang soo dee njaboot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo xëyee nekk sang li yàlla di xaar ci yow balaa ngoon nga def sa bopp surga ekool boo xam ni du bàyyeeti ku tuuti te yëkkatiwu ko ba ca kaw waaye école boo xam ni ku mu yëkkati ba ca kaw yaay wàccee sa bopp ba ci suuf ngir feeñal sag nekk jaam ngir feeñal sa nekk jaam ndax yàlla moom cër bu mu la mën a may fu mu la mën a yéegee mi ngi lay seetlu mi ngi lay seetlu ndax danga naan nongu ca cër ba di ko doxe di ko waxe walla da ngay wàcc rot ci suuf ni ko sa jaam rekk la waaw boobu daara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rekk moo ko réussir yàlla dénk naka njaboot waaw muñ Zayd Zayd di jaam bu sayyidatuna Xadija radiyallahu anha jënd mu di ko liggéeyal سيدتنا خديجة رضي الله عنها jël boppam ak alalam te comme zeyd jaamam la woon moo ko moomoon mu jël lépp jox yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono di dox ba zeyd war jël soxna aada bu ñaaw nekk ci pénc te mooy ñu ngi koy xool bëtu ak fu mu mën a yegg tey yaroo ci kër xadijatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar ko loolu yépp terewul jaam la kër gu mu dugg pour wut soxna ñu xool ko jaam nga kenn du la may suñu doom ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dagg aada boobu wacc seet jigéen ji dàq ci pénc mi gën fi jekk muy Zeynab bint Jahsh mu yëkkati ko may ko Zeyd bi ñu ni jaam la allahu akbar waaw fi saasi kuy góor boo ko waxee boo ko waxul ñee nga zayid ñee nga ko ndax jigéen ji góor ñépp doon xëccoo ci pénc mi yonent bi jël na ko may ko ki ñu ni jaam la ci pénc mi xanaa yëkkati na zayid wan na ko ni ko ak jaam ci jukko la waaw nit ay tuuti ba yàlla dootul mën a konte ci moom mu génn ci moom bakko waaye ku defar sa jukko fa ñuy lime sang yépp ñu boole la ci Zeynab it am ñu ko ci xeeb ndax ñu ni wàccee na boppam laa ilaha illa allah ki ñu ni woon surga la ci pénc mi yonent bi yëkkati na ko sallallahu alayhi wa góor ñëpp a ko ñee koo ñee bool bati koo naan jaam la dangay nax sa bopp waaw ñee ko ba noppi naan jaam la jaam la dangay nax sa bopp waaw jigéen ji dàqoon ci pénc mi waaw ba yëgal ko boppam waaw waaw waaw ñu ni ko Zeyd ngay sëyal mu ni du ci dal ñu ni ko yàllaa ci addu mu ni kon d'accord naa nangoo wàcce boppam ci aada Allah kee mënoon na topp nekkuk jaamam moom zeyit ba xeeb boppam ba yàlla génn ci waaye Zeynab it mënoon na topp nekku sangam ak taaram ba naw boppam ba yàlla wàccee ko waaye tey nangu na waaw wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amr hmm waaw yàlla rëdd wax yonent bi ni ko defeel nii Zeynab ni du ci dal may sang muy jaam ma dàq fi ñu ni ko yàlla ko rëdd jaar ko ci yonent bi mu ni ko nangu naa <coughs> jamono di dox sëy ba di yëngu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di defaraat di defar ak defaraat waaw waaw dëkk ata amrullah dëkk ci sëy boobu yàlla bëgg na ci régler aada yu ko naqari ci pinc mi yépp waaw bu teyee ñëw ni ko li mu ma def boo léggee Zeynab ñëw ni ko ni mu ma def bu Zeyd ñëwee ni ko dama koy wàcc rek yenent bi ni ko am sik aleyka zawjak ndeysaan waaw bi ni ko jàpp ci jàpp ko rek téyel muñal ko ñu dem ba fa yàlla tudd sëy ba war fa jeex zëy du wàcc zeynab pénc mi jógati waaw pénc mi jógati ñu ni bee zeyd moo nekkoon jaam ñëpp di ko daw yonent bi jël Zeynab jox ko ko mu yëkkati ku ñëpp ñee ko ñu ni tey nag Zeynab mi doon sëy ak jaam bi tey um na boppam um na boppam kenn dootu ko jël comme soxna kenn dootu ko jël lu tax dafa sëy ak jaam waaye nangul yàlla rekk a am solo yàlla ni yenent bi comme baat boobu jiboon na ndaw si dàq ci dëkk bi nangu sëy ak jaam bi gën a xeebu ci dëkk bi comme jiboon na te Zeynab nangu woon ko ngir man ak sa kàddu tey ma yëkkati Zeynab man yàlla ba ñëpp ñee ko mooy yow yow yow yow yonent bi yow laa koy may takk ko <laughs> waaw laa ilaha illa allah may ko yonent bi ca kaw hmm? وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه نيسان إيه نت نت ركلا ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم دفيو زيد ñu ngi ko doon dàkkantal Zeyd ibnu Muhammad yeneen tibee ko yar adopté ko rek muy doomu jiit lépp jël soxna wacc ko yàlla ni yenent bi yow yaay jël soxna si yenent bi am kersa naka lay waxe loolu ci pinc mi ndeysaan am kersa lool mu diis ci moom lool waaw watux fii fii nafsika ma allahu mubdihi ndeysaan wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxshaa فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لا اله الا الله yàlla siggil na zayid jaar ko ci zeynab ñëpp xëy nañu ñee zayid ndax zeynab mi nu ko may ñu pare diggante ba jeex pénc mi nii zeynab um na boppam kuy sëy ak jaam ba noppi keneen di la dencati yàlla ni yonent bi yow laa koy may yàlla yëkkati na zeynab ci turu yonent bi jigéen ñépp wëlbatiku ñeewaat Zeynab hmm? ku daara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek ko sañee lu tax yàllay tëral programme ba gis nañu ci daara yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdun xabashiyun jaam yemul ca jaam di nit ku ñuul yemu ca di africain duxu ndéem ñu koy wax bilaal alxabashi jaam bu nu jaay ñu jënd ko di ko liggéeyloo ba xëy yàlla xar dënnam leeru yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waaw ah, dënn ba di tëf-tëfi ah, muy làqu di feeñal la mu yéene yàlla ah, waaw patron yëg ko di ko sonal di ko metital di ko mbugal ba bakkanam mënoon na caa dem sayiduna abu bakrin siddiq radiallahu anhu yow jënd ko nu bi may naa la ko وتك بتم تشينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم فاتناني جام لا نيت كو نيول لا دوخانديم لا مو تك بتم تشينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم فاسيني بالاي باي نيك تبارك اللهم yonent bi sallallahu alayhi wa jëfandiku ci moom ñu xëy waa mag yëpp naan kii yàq na xale yi naan Muhammad yàq na xale yi Aliyun kenn mënatu ko yónni mu dem Bilaal kenn ñameetu ko yónni ndax ku ci ne ci ñoom def nga sa bopp kilifa waaw naan Muhammad yàq na pénc mi waaw yàqu ko da koo defar waaw ndax li ñu bëggoon mooy ñu xëyee di diri seeni manto di wone ni ñooy buur yi waaw ku bokkul ak ñoom ñu def la surga ñu xëy yonent bi ak bilaal yiw bilaal gis ci yonent bi bu ñibbee roy ko ci moom ba xëy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi génn waaxu wuti makkatal mukarrama waaw bés boo xam ni ci bis boobu ci la yàlla sunu boroom tudde woon ni tey la dëgg di falu ba faw neen foleeku ba faw yenent bi agsi si màkkaak armée boo xam ni kenn mënu koo dékku nga ni woon du fi yegg si ñëpp daw ñii ñëw tuub ñii wuti àll ba ñii làqu ci seen suufu lal yi yenent bi la ko yitteeloon du ñëw yilif màkkaak di gere kaaba ga déedéet waaw ñaari baat jaa alxaqu wa dahaqa albaatilu inna albaatila kaana dahuqa ti bi ñëw ci kaaba gi seen xërëm yu bare yooyu ñu fa defoon tudde ko ay yàlla xërëm bu mu ci bëmëx ngay daanu mu ni jaa alxaq wa dahaqa albaatilu qul jaa alxaq wa dahaqa albaatilu neen daanu na du jugati dëgg falu na du wàccati ñu pare yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mbooloo mépp toog sang yu ko yàlla booleel ñépp toog mu woo bilaal ñu ko bilaal xeeb nañu la ndax ñett xeeb nañu la ndax nit ku ñuul nga xeeb nañu la ndax gan nga ci dëkk bi xeeb nañu la ndax jaam nga waaye yàlla nee na dëgg du ñaar benn la jox na la kàddoom nga jóg noddu ci turam sayyiduna Bilal jóg allahu akbar ku ne ci njabootu yonent bi booba bëgg nga loola ñu cërale le ko waaye bilaal lañu ko cërale allahu akbar allahu akbar ah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 laa ilaaha illa allah waaye loolu ku ne bëggoon nga ñu féetale le ko keroog la yàlla jox ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko joxal bilaal mu defal ma ko bilaal falu na Hmm? mujj gi bilaal kenn dootu ko sàllalu ci kanamu yonent bi sayiduna bilaal rekk ngay dégg sunu sag sang boroom daraja yi bàyyi seen lépp ñëw wuy yenent bi ak seen tedd nga sayiduna aliin di mbokkum yonent bi sayiduna umar di mbokkam sayiduna usmaan di mbokkam سيدنا أبو بكر دي مكام كتي و بلال سيدنا نغا كاي ووي سونو سانغا ها لاقبنا عفان في مغيرة وعتيقا عند مرة فاروقا بكعبهم أما علي بلا شك قد التقيا بشيبة الحمد ذي الإفضال والهمم كم ينت نيب مبوكو يوننتي بلا أمنا فلان مام بولي كوتي وو بلال سيدنا بلال نغا كاي ووي داخ لي تخ نيت دون سانغ تي بينتي يوننتي بلال أمناك تي موي دافر نا جيكوم با يالله سبحانه وتعالى سوبكو وولوكو يوننتي بي سوبكو وولوكو بلال يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم يونت بدي دي كونفيرمي تشيرو بلال رك وي كونفيرمي تشيرو بلال رك خي رك نيكا بلال كاي ني وقتان نك بما سبقتني الى الجنه Bilal bi ñu ma invité ma suñu borom invité ca kaw bi may visité aljanna waaw waaw fu ma taxaw rek dégg say tànk tig tig tig di ko waaw foo jaar waaw foo jaar ba am loolu wan ko ni ko ah xaw ma lu ma ko may de waaye daal lenn moom góorgóorlu naa ci ba saxal ko ci sama bopp te moo di fàttalikuuma fu ma yeesale njàpp fu ma yeesale njàpp te julliwuma ñaari rakkaan Santa ko yàlla sama borom jeex na ki fexe ki fexe ba kudul yàlla mëtu la buur yëkkati sa jukko def na la sang ba faw loolu la yonent bi defal sayduna bilal fexe na ba yàlla rek moo fees bëtam xol bi yàlla rek ci wéq ruux bi yàlla rek koy wéttali ba fu njàppam yi toje fu demee yeesal njàpp bu dikkee julli ñaari rakka delloo sant yàlla sunu borom falawul ndax sayidna omar daan abu bakr sayiduna wa ataqa sayidana waaw sayidna omar moo doon wax naan ñun ñëpp abu bakar mooy sunu sang ndax moo nu jiitu ci yonent bi te it defal naka lu ko kenn ci ñun defalul mu ni waaye abu bakar it moo goreel sunu sang ñun ñëpp مودي بلال سيتال لولو كروك بيونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ديجي نجابوتام ني وقتان نيوم الخلفاء الأربعة ني مون موني ديسان مو ني تي بير ba génn ñu noppi mu ni leen lu ngeen doon ngun nguni waaw ah, ah, kenn ku ne xool sa moroom muuñ ñu leen wax leen ay ca boole leen ma ci waxtaan wi boole leen ma ci waxtaan wi ñu ne ko yaa rasulallah ñun daal dañu doon waxtaan ci sunu biir léegi di wax ni wàccoo nga ak ñun <laughs> fa nga nu jële ba indi ñu fii nga nu indi wàccoo nga ak ñun <laughs> lenn rekk lañu doon waxtaan ni moo des mooy bu ëllëgee yowmal qiyaamati kan ci ñun la yàllay terale mu def diskuur ci kanamu yàlla mbindeef yépp toog almalaul aala ñépp fekke kooko jóg moom kot yàlla di ko déglu ñépp di ko déglu mu def discours ci turu yonent bi sant yonent bi gërëm ko ci taxawaayam ci xeetam ci kanamu yàlla discours booba rekk lañu doon wax naan ki ko yàlla terale ci ñun bu ëllëgee muy sa cër nga def ko bu discours ba jeexee ba yeboo sax ñu ommat la yóbbu safara doo yëgati mettitu safara ndax bànneexu cër boobale yonent bi sallallahu alayhi wa joxoñ baaraamam romb sayiduna aboubacar sayiduna omar sayiduna ousmaan sayiduna aliin ba ñoom ñëpp ñu daj mu ni leen yéen ñii ñëpp waaw discours boobale du ci cëru kenn ci yéen ñu ni teg mu ni geesu leen ñu geesu xool sayiduna bilal muy ñëw waaw ak ñuulaay baag dañu ko torturer ba su masaan di dox léeg-léeg ndeysaan tànk yi day tëbb suuf ndax dóor yi metti seen ko muy kayang kayang yi di ñëw yenent bi ni leen kële la ko yàlla cëre la ëllëg yenent bi fal na ko fal na ko fal na ko ci jukko waaw dootul jaamu kenn jaamu yàlla la looloo tax keroog bi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna mu takk bagage am ñi ma ngay ñibbi Sham dootuma noddal kenn yonent baa ngi ci suuf sayidna abubakar mi ko jëndoon goreel ko jox ko yonent bi ñu ko kaay dama bëgg nga toog fi di ñu noddal bilaal taxaw xool ko ni ko bu dee ba nga may jënd pour moom ma ba loo ma sant ma def moo taxoon fa naam ma toog di noddu ndax kon damay xam ni ba tey sa moomeel laa bu dee ba nga may jënd nag danga ma saraxoon yàlla pare ci ba maag sama décision Seydina Aboubacar ni ko yàlla rekk a taxoon ma jënd la kon nag bàyyi naa la ak sa décision bopp ñu laal takk bagage ñibbi digg digganteem ak yonent bi du dagg mukk yonent baa ngi ci biir suuf sallallahu alayhi waaye digganteem ak bilaal du dagg ndax kàttanu yonent bi ëpp na foofu mu tëdd di nelaw yonent bi ni ko pëkk pëkk waaw waazihil jafwatu ya bilaal ama ana laka an tazurana fi lmadina ni ko bilaal yaa ngi triste waaw ndeysaan yaa ngi wéet bilaal yaa ngi soppeeku waaw ah, xanaa nammuloo ma xanaa nammuloo ma nga nuyu si ma nga ziyaar si ma ca madinatu munawwara laa ilaha illa allah tëdd gént gis yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ak yow waxuma mu wax ak yooyam ci waaye xanaa nammuloo ma nga nga nga nga nga ziyaar si ma bilaa la ngi ci suuf waaye ñi ci bàmmeel lay waxal ana jaam nga jeex na yenent bi fal na ko ci jukko kenn mënatul fàtte bilaal moo tax ba fii sax ba fii ma toog di wax a génn tisbaar bu jotee tey ana bilaalu jàkk ji ngay wax ana bilaal bi fekk bilaal baa ngi tudd sàmba si waaye doo tudd sàmba si ana bilaalu jàkk ji rek ngay wax bilaal takk bagage am ah, takk bagage am rek foo jëm ca sama soppe ba foo jëm ki ma gënal ci li yàlla sàkk ñëw rek yegg si fa day sànn waaw sagoom ah. ki ko fal ki ko fal ki ko fal ci yàlla ba mu mel ni mu mel tey moo tëdd nii ci biir suuf loolu bilaal attanu ko ma lay jëmm jaa suuf mënu ko téye jëmmam ju tedd jooja waaw day sànn tax ba ñuy werante naan bi ruuxi am bil haykali nday sànn ni ba ko yàlla invité ruux ba dem kese-kese walla ruux bee ànd ak jëmm ji ma ñu leen jëmm ji nuuraani ya mook ruux baa ànd dem laa ilaha illa samawta bihima Bilal tiim ko di jooy ndeysaan ci waxtu wi sayiduna al xasan ak sayiduna al xuseyn radiallahu anhuma nga xam ni ñoom ñaar ñooy xolu yonent bi ñooy resam di ñëw di ziyaar ci seen maam fekk Bilal muy taqlikook sagoom waaw ñu ñëw ndeysaan lëng ko fóon ñu ko gis nga bàyyil jooy yi soo bëggee sama maam bég noddal ko fajar gaa ngi xar noddal ko waaw waaw bilaal yuuxu allahu akbar allahu akbar mu mel ni madinatul munawwara kenn ku ne salal daf la wéq ni la jógal jigéen desul góor desul xale desul kenn desul waaw ña woon dara sax fëkk seen musóor sànni seen kaw bopp waaw ah, Médine mel ni dañu ne ñëpp génn leen lu tax dégg nañu ne baat baat boobu baat bu ñu gëj a dégg te moo di baatu Bilaal waaw waaye bu ne ashhadu an laa ilaha illa ba yegg si ci wa ashhadu anna muhammadan rekk du ko mën a yeggale mu daanooti ndax yëkkat ashhadu anna muhammadan rasulullah yeneen tubbee ko fal waaw moo tax fexe na ba kudul yàlla mutu ko buur waaye kudul yonent bi mutoo ko royukaay jex na waaw waaw Abubakar ak jëndoon goreel ko waaye yonent bi la teg bëtam jex na daara yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax mu neex ah looloo tax daaraam neex waaw su paree ci yow doo doon surga kenn doo doon dofu kenn doo doon jaamu kenn yàlla rekk lay mët buur yenent bi rekk lay mët kilifa Bilal xamoon na ni gannaaw yonent bi mënatul dundu Medine ndax wóorul barke bi day dugg si te su barke duggee bakkan falu te su bakkan faloo wala ayaadu billah lépp yàqu a tax sëñ Cheikh nee diine ju màggat mook paxiwel ñoo yem paxiwel waaw wel yee dañuy gas seen i pax dëkk ca di suturlu yàggee jaanu njàngoor ya ñëw di romb pax yi wel yi dootuñu leen wóolu dootuñu wóolu dëkk ak ñoom ñu fëx dem toxu bàyyi leen ak pax ya njàngoor ya dëkke ko nga ñëw yaakaar ni wela fi nekk nga dugal sa loxo di gas njàngoor ni la tappit kenn du la lugg nga jaar fa ñu ñaanal la diina ju màggat waaw waaw diina ju màggat waaw waaw diina ju màggat danga nga ca dem ba ñu saxalal la loo xam ni defe nga ni diine la te alkande la waaw tariqa bu màggat ca dem ba ay nit topp seen bakkan ba dugal ca lu ñu tudde tariqa te du tariqa boo ko laalee alku waaw waaw moom ci ñi gis loolu teel ci la bokk moom dem dem waaw keroog ba sayidna omar radiallahu anhu nekkee amirul muminin waaw di di def visite waaw ba mu yeggee Cham ndeysaan jullit ña teeru ko waaw bokk na ca lañu doon ñaan di ko sàkku mu dimbali leen ci mooy mu sarxul leen bilaal ngir yàlla mu di leen noddal ñu koy barkeeloo ndax yonent bi fekk bilaal lu ne daj nañ ko pour mu di fa nodd foofa mu lànk am na fulla waaw su doon mën a laa ilaaha kon ma falu ci wut kaala yu rëy manto yu rëy ni kii kat moo nekkoon Médine daan na dool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag comme yàlla may na nu chance ñibbi siwaat na fii di sunu mbokk léegi moo nuy noddal su ko defee jàkk ju ne jumaa ju ne bu aj jumaa ñu luyoo ma yóbbu ma ci benn jumaa ma nodd fa ñu dajalee àddiya jox ma ma yaakaar ni ma ci nekk topp ko ba xëy alku topp ko ba xëy alko waaw mooy li xew senegal hmm? waaw kii moo mën a nodd moo kii moo mën a jàng alquran fu ne ñu luyee la yóbbu la fa caaxaan caaxaan Bilal dem lànk waxtu julli jotee mu dem julli comme ñëpp ñibbi kooku yonent bee ko yar <laughs> hmm? waaw waaw waaw trafic d'influence moom mucc na ci yonent bi yar nga mucc ci ñu ñew sayyidna omar ñu diko sarxu diko sarxu diko sarxu ba mu xëy ni bilaal sarax ñu bok nga noddal ñu bok tisbar gi ñu barkelo ka sayyidna umar omar forcé wu ko da ko doon ñaan ndax xamna ni bilal sang la ko ñep ku ko forcé mu lank ñaan ko ko ba mu may ko ko moom itam ruse ko yonent bi moom bilaal ndeysaan bu yëgoon du ko ñaan ndax ba bilaal di nodd laata muy àgg ci ashadu anna muhammadan rasulullah moom bilaal di daanu seydna na a njëkk daanu ñépp jooy ba tàqali ko sagoom jullit ña kenn desul waaw al insaan nit bu nu paree ci moom bu tegoo ci loxo bi mu war a tegu bu paree ci moom mu toxoo ci doomaadama di nit toxoo ci nit nite ah dem ba nekk mursal dem ba nekk xalifatallah fil ard am na ku nuy wax saad ibnu muaz taaliba yont yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam taalibe ci sensu njaboot waaw bi muy tuub di dugg ci lislaam fanweeri at ak benn la am bi muy génn àdduna fanweeri at ak juróom-ñaar la am kon juróom benni at la def ci lislaam laa ilaha illallah bokk na ci ñi nga xam ni premier ambassadeur u l'islam bi yent yàlla muhammad sallalahu alayhi wa sallam fale fale mak yabal ko médine muy musab ibn umayr mu dem fa pour préparer le yent bi terrain waaw saad di njit di kilifa ci bir médine mbolo top muy sol dalam di dem ci musaab ba jam taxu ko wonu juk histoire ka taxoon juk ah dafa ni won na dem dam loxo musab freiné ko bala muy yak sunu pinch mu se fek musab ak hayba Ah, waaw njàngalin ba ak ñeko wër di ko déglu alquran ja dënn ba di tëf-tëfi moom Saad ibnu Muaz te kilifa la gannaawam yaatu ndeysaan waaw eh, bi bi sama yéene di soppeeku yëguma ko yéene ba taxoon may dem pour freiner Musab nee bi muy soppeeku waaw yéeney toog tàllal ko loxo jaayante dugg ci lislaam bi muy tàbbi yëguma ko moom Saad ibnu Muaz keroog ba ñuy dalal xelu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca xaswatu badrin ja yonent baa ngi taxaw ak lim su néew waa Makka nga taxaw ak lim bu bare ak ngànnaay yu bare yonent bi di nattu ñi ñi ñi mu àndal ba xam ndax pare nañu pour def face ak moom noonu yàlla yi walla déet Saad moo dalal xelam laa ilaha illa waaw hmm? ah. ah. san xool yonent bi rek xool ko rek jëli ko waaw ni ko sang bi dafa mel ni danga nga soxla xam sunu position <laughs> ndeysaan fet que ñu ngi lay yëgal ni baat bii may wax du sama baat man rekk waaye képp ku bokk ci famille bi tey ji may wax ci seen baat jiitul ñu topp la waaw duñu la wax mukk la banu israil waxoon yonent yàlla Muusa alayhi salaam idhab wa rabbuk fakatila. inna hahuna qa'idun demal yow musa dal demal comme yow la yàlla yebal yaa yonentam Wargen mana sa buur war ngeen mën a dékku guerre bi dem len dal ngeen guerre bu ngeen paree ngeen fekk nu fi ni ko duñ la wax loolu mukk fa walladi nafsu muhammadin bi لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ko ñu ngi lay gëm ñu ngi lay giñal ni leen waaw boo songoon géej gi ñu song ko ak yow boo ko xuusee ñu xuus boo feyee ñu fey waaw te kenn ci ñun du des nag te it duñu la jox bopp ëllëg ñu rocc ci làmmiñ waaw waaw tey tey la bu ëllëgee boo nee jël leen ngànnaay yi it ñu jël ngànnaay yi topp sa gannaaw sax de wax keroog baat yi ëpp na loolu sax dañ koy tënk waaw ndeysaan keroog xazwatu Uhud ba nuy duur yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ceinture buukulu bëñ bi damm mu daanu xëm waaw ñu ni ñu ni ñu ni yenent bi génn na àdduna sikki sàkk tàmbale dugg jullit ñi tasaaroo yéefar yu songu leen di leen def loo xam ni kenn mësu ko gis keroog Saad ibnu Muaz moo jaay bakkanam taxaw tiim yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di ko défendre ni kenn du ko jege waaw day sànn waaw ah waaw waaw stratégie ba nu jël tabaarakallah ahsanul xaaliqiina bokk na ca ña yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon déglu xalaatam waaw ah, bañ ko jamee ah, ba yonent bi ni nañ ko évacuer ndeysaan waaw ah, mook jam-jam ba ba yàlla terele ko keroog bi ko yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di seeti ci feebaram ci minitam yu mujj yenent bi yëkkati boppam moom saad teg ko ci kaw luppam waaw ci minit yu mujj saad jël ñaari bëtam aj ko ci ñaari bët yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di ko xool saad di ko xool di sant yàlla ruux ba di rot di génn mu ni ndax ma mujjaale ko boobu mbégte man saad ma yóbbaale banneexu gis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu génne àddina ñu koy gunge ca këram gu mujj yonent bi di temp ah, dox bu teey waaw ah, Seydina Omar mi ko xawoon a ñeme waxuma ñeme yabel ndeysaan ñëw ba tolloog yonent bi rek mel ni ku ko xaw a laal mbaggam mi tuuti ni ko eh, sang bi baralal sa tànk ndax naaj bi tàng na yonent bi ni ko Umar fu may teg sama tànk fu may teg sama tànk ni ko ndax ci kaw caserne desu ben malaka desul ci caserne ñu ñoom ñépp la yàlla mobiliser wacce len pour ñu gunge newu sad mu jëm ci kërëm gu mujj ni ko suuf ci yépp ay malaka lay dox keroog la yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxe batam ba waa ni leen ihtadda ihtazza arshu rahman li mawti saadi yenent bi ni leen musul am bakkan bu faatu arash yëngatu jaayu yonent musu ko am xutbu musu ko am wali musu ko am yonent bi nee leen keroog arash yëngu ndax saad mi génn àdduna Hmm? waaw ah. ndax keroog arsh yëngu na ndax génn àdduna saad te xoolal du yonent du xutb du waliyu waaye defar na jukkoom ba yàlla sopp ko mooy li am solo mooy li am solo waaw li am solo defar sa baatin defar sa zaahir ba yàlla sopp la waaye looy doyati nekk mahdi yu muntadar looy doye nekk yonent bi looy doye nekk xutbu zaman looy doye xutbul aktaab loo koy doye yow kay da bëgg falu di tiitaru heureusement ba nga xamee ni yooyu yàlla du ko def kuy kuy tiitaru ñu fal la xutbul axtaab nga jonkon ci bopp ñëpp di mbaam tugulu tugulu nit ñi moo tax koo fi dégg mu naa la may xutbul axtaab rek mooy këlbul kilaab waaw maa la ko wax waaw xutbul axtaab waaw hmm? lu koy doyee dajale mbooloo tiitaru waaye ku dem ba yàlla sopp la ba nga yëg ni foo jëm yaag yàlla almaiyatu ma allah looy doye nekk xalifa yàlla naan maay xalif maa fi nekkal yàlla ci kaw suuf maa yilif ñëpp di ko bàkkoo di ko tiitaro naan xutbul aqtaab naan maay mahdi yu muntadar caaxaan caaxaan caaxaan top sa bakkan ba nit ñi xam ni bakkan yow ngi wu sax xam nga ni sa bakkan la yilif ngay wote nan may li ni de ñom am nañu li ci daara yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw wa mahtazza wa mahtazza arshu rrahmani li mawti haalikin samicna bihi illa li saadin abi amri kooku doy na ah, doy na kii ngi nii du yonent du xutbu du waliyu waaye ni yonent musul faatu arash yëngu xutbu musul faatu arash yëngu waliyu musul faatu arash yëngu kii nag surgo yonent bi la woon defar na jikkoom ba yàlla sopp ko keroog bi mu faatoo arash jaayu na yëngatu yàlla mobiliser na malaaka yi ca caserne yépp ñu wàcc ci kaw suuf di gunge néewam école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga moom bu la yare sa ruux dootul dimbali ko lu dul jukkoy sang ah moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su lay yaree sa ruux day xëy di sélectionner vertu yi waaw waaw bu doon bu doon bu doon per la dañu naan per par per bi ca gën a dàq gën ca rafet waaw lay tànn benn par benn di ko sélectionner ba mu mat càkk mu takk ko <coughs> baal leen ma de hmm? sa ruux du xëyee fu jug koy sang nekk dana ko wëri ràngoo ko ku yonent bi yar laa wax hmm? sa jukko sa jukko sa jukko ci boppam bu xëyee benn yitte lay am mooy moomit naka lay waajale boppam ba ruux bi bu dikkee du ko fa romb te dignité booba nit mënu ko am te góorgóorluwul ba mën a fajal boppam soxla ñu wax ni ku bëgg tabax sa jukko te mënoo faj sa soxla doo tabax jukko ah ndax bés bu set soxla jonkonu la boo xam ni mënoo ko ñàkk faj te mënoo ko faj waaw kuy def buset bu set nga am fukki soxla mun ta ñàkk faj te mëno ci faj ben ah ah waaw do mucc ci bu yagge ñu corrompre la kuy def fo tollu talal sa loxo di ñaan mëno munoo sa personnalité lekk waaw moo tax yont yàlla muhammad sallallahu alayhi daaraam rekk mooy daara hmm? waaw ngay fekk yonent ñu la moom la yàlla di waxal ca kaw gàddu yatam di sàmm juram lu mu wàññi ci yonent ga ci yonent la moom la yàlla di waxal ma ngay commerce yi ma nga ci luuma yi di yëg di wàcc lu muy wàññi ci nubuwaam hmm? waaw moom daawul jaaxaan di laaj njaboot yi addiya de sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw ni damay jébbalu dugg ci lislaam mu laaj leen ba xam lan lay liggéey <laughs> yore ñaari registre registre ba muy bind notable yi ñi am as ak ba muy bind surga daawul def noonu de sallallahu alayhi wa xàmmewul woon ki ñëw indi dépense ak ki amul dara fexe na daal ba ku ko jox sa bopp tisbaar balaa midi balaa euh, balaa tàkkusaan mu def la sang jeex na daal boo ko joxee sa bopp ñett ñu ne fexe ba nga yëg li nga doon yow yow doomu aadama nga xam li nga doon dina la xamal ni la yow danga nekk ibaara an iradatin takwiniya wa ida wa idaaratin taalimiya am na lu ne ci yow boo ko yee boo ko dundalee yee ko benn volonté am na faculté yu nekk ci yow waaw boo leen yeewee ba nu yeewu volonté booba dina la mën a may ñi defal la formation ci daara yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ba ñett yi nga réussir ko ruuxun tartabitu bi asbaabi saadati waaw ruux bu regg ci leeru yàlla waaw bay naaw ci asamaanu kóolute دي جبريل وخلق ينطوي في طرفه على العذة أكجوك جو حمني dignité ba ko war sàmm aar ko ba kenn du ko ruur moom jukko ja ya ko wara sàmm aar ko ba kenn du ko ruur yépp mët na ci sa wet moo tax ngay fekk kuy njabootu yonent bi boo nee tëll yam ci moom tiit yaakaar ni buur la ndax jekku gu mu jekku àdduna fekk na ni wallahi àdduna bi gisu ko bëtam nga ca yàlla ah, waaye da ko ñage da ko ñage jukkoom ñage digniteem ah, ah, fexe na ba ñàkk tedd hmm? luy tax nit mën am dignité doo wër di laaj do ñàkkal sa bopp fayda waaw fexe na ba am ko jeex na waaw waaw inna bani malikin min xayri nisbatihi laa yacrifu luma minna ahdasu rajuli قد اختبرنا من الدنيا مطاعمها زقنا المرارة زقنا جودة العسل ليسان ولم نجد منهما ما نستلذ به إلا الإباء وإلا صولة البطل دمب آه. آه. di dignité tax soo waree ni waaw ni waaw soo waree ni déet di déet ni déet mu jeex mucc nga ñetteel ba mooy wa maddatun tazdahiru fi dhilli al ifaaf ñuy wax émergence kiy jaar ci ñaari étape yi moo ko mën a am waaw ki ruuxam regg muy naaw ca asamaanu kóolute yi waaw di sant yàlla waaw jukkoom ñoŋ ba kenn mënu ko ruur waaw bu alal dajee ci loxoom mu def ca loo xam ni lii ku ko xool xam ni kii tedd na waaw la ñuy xaar ci njabootu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw والخلق المطهر بعدها والمادة السفلى التي لم تبعد programme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jullit al insaan tax laay wax nit bu tuutalee boppam yàlla jéppi ko ndax tuutiwul tuul benn yoon ku mën a dem jóge ci jóge ci jóge ci aadamiya jëm ci insaaniya dem ci insaaniya ba yàlla gàll ci sa kaw risaala waaw waaw dem ci risaala ba ba yàlla doole la ca ñëmu ràng xilaafaam ja waaw ah, waxuma sol manto da taxaw naan maay xalifa yàlla déedéet solal sa jin teg si sa chapeau ah, tak say dal di waxu ci mbeddu ndakaaru yi ta fekk na yaw la wa fekk na budul yaw du kenen jahan jahan يكون الإنسان في الأرض أو ليحيا الإنسان في الأرض وذكره في السماء ثم يعود إلى السماء ولم يفارق قلبه حنايا الأرض حنايا هذه الأرض التي عبد فيها خير من يعبد نجنتي أكولي أنت على محمد صلى الله عليه وسلم dund ci kaw suuf waaye defar nga sa jukko ba yàlla sopp la bu yemul ci sopp la woo malaul ala ñëpp ni leen diw mee dama ko sopp waaye soppala leen ma ko waay ñum hmm. ñëpp ñu ànd ni ko koo sopp ñu sopp ko nga dem ba ñu la sarxul ñoom malaul ala di la sarxul yàlla ca kaw ko waaw doo ñu sarax rek nga may ko nationalité waaw mu am double nationalité waaw kenn mu mel ci souf ñun rek la waron dëkkal way ndeysaan waaw suratun fi lbisaat gaarat alayha rusulun fi lsama ya xayra muajab li yonent bi sallallahu alayhi njëkk def ci bopp ñooño moo di antal gaaya yow nit yow la yàlla visé yow la yàlla di wut waaw ba cëg boo ma joxee sa bopp man Muhammad ba ma pare ci yow rekk yàlla am la ñu ko ah nu ma koy ame mu ni ko daal dimbali ma ci yii ittaqillah xaysuma kunta ittaqillah xaysuma kunta أتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن فونك دال بول جابني موك جسو كن بجابني ويتنغا bu ñàkk gis kenn ci sa wet ba ñàkk ni ba jàpp ni wéet nga waaw yàlla mi munta wuute foo ne mi ngeeg ànd ak yow kon bàyyil xel yàlla sa borom foo toll atbii sayiata alxasanata tamxuha ca ña ko déggee bu rëcc rëcc amee gaawal dabaatal waaw bu ñaaw boo defoon def bu rafet ca wet ga ca ña ko déggee nan waaye maa nga ca ña ko déggee waaw bu demee ba xalaatu safaan dikkal la waaw balaa ngay dem ci ci ci ci concrétiser ko remplacer xalaat bu safan ba remplacer ko bu yiw remplacer ko yiw waaw te nga fexe jëmmal yiw ba hmm وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله seytaane dalay këf jékki-jékki rek sàcc la hmm. xaaliqi naasa bi xuluqin xasanin fexeel ba vertu morceau par morceau ba am ca morso ya dàq nga ràbb ko def ko mbubb solal mbubb ma waaw bu ko summeeti mukk koy jëflanteel walla koy waxal solal mbubb ma waaw bul sàkk ci pinc mi koy xeeb waaw koy jëflanteer rek jàppe koy yàlla borom mi ko sàkk koy jëflanteel rekk xoole koy yàlla mi ko sàkk yàlla bindul ku tuuti bindul lu tuuti التقدير كو جس ريكونسيديري كو والاحترام كوي جفلانتل ريك داوالال اورما سا ديغنتك موم اك كومو مانا دون نك ميم بوكو يلي فيه دارا ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وقد مباريك يو يلا ركلي مت بور اي موم يننتي بي ركلي مت كليفة واي القرآن جو تد جي مولاي دوي پروغرام تخون ماني لين كروك sampla sampna sama ndënd amriu ah, ku ni mën nga defar am riw wala nga ni di nga defar aduna bi ah ko ci programme yonti muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sa tax tej do dem man maa ko wax lutax ah, ah. programme la bo xamni ربانيه عالميه لا يجوز الشمول الاصاله والخلود رعايه مصالح البشر التيسير ورفع الحرج التوازن بين الماده والروح التلازم بين العقيده والحياه sharia yant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngoog rëddu ko yàllaa ko rëdd waaw waaw sharia la boo xam ni rabbaaniya la waaye aalamiya la boo ko jeexee ci biir gëstu ko gis ni a chumuul mboolem yi dund nit soxla yi dund nit soxla pour nit mën a jekku jekku àdduna mboolem li dund nit soxla rekk daf ko arbitré jox na la ko waaye dafa taxaw nekk arbitre al asalatu wal xuluud ñi naan enracinement ak ouverture waaw reen ya dafa sax waaw fu loxo yàggul pour mën koo buddi texte yu ko protéger reen ya dafa sax fa ko yàlla làq loxo mënu fa yegg pour buddi ko moo tax du lu ñuy changer waaye itam lu nangoo def ouverture la danañ ci ñëw ci détail incha allah waaye itam nga gis ni riayatu masaalihil bachar li sharia indi yëpp sàmmal nit ñi seen intérêt moo tax lii jëriñ nit ñi àddina ak àllaaxira moom la sharia di sàmm di protége nga gis ca at taysiir wa raful xaraj nga gis ca ni yërmande yàllaa ngi leen tiim lu ca nara diis mu woya fal lu ca nar a xat mu yaatal nga gis ni itam at tawaazunu bayna al maddati wa roox yàlla nanguwul nga di ko sédd ba toroxal sa bopp déedéet daf lay wax ni la daf lay wax ni la lekkal ba suur naanal ba màndi sañseel ba jekk door a dem jàkka ja du la jël mukk bàyyi la déedéet nañu séddoo la lay wax moom yàlla sangul ba set solol ba rafet lekkal ba suur naanal ba màndi solul ñëw jàkk ji julli gi dellu ci man yeneen yi dellu ci yow waaye nu gis ca nag at talaazum bayna al aqidati wal xayaat doo ca gis kuy weddi boppam daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina fexe ba li nga jàng ci téere yàlla bu tedd bi mu ngay dëppaleeg sa dund ndax mag du weddi boppam nag tabaarakallaa tabaarakallaa kon nag bàlleen ma damaa ngi jël seeni minute 88 628 10 95 88 628 10 95 ah mbokk yi yegsi nañu ci fi sunu émission di jeexe tabaarakallaahu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bëggoon a dugg te mënuñoo dugg ak ñu jot dugg ñëpp tabaarakallaahu yiw bi yal nañ ko yàlla boole yal nu yàlla defal mucc ak muccule defal nu wér ak wérle may nu dund ak dundule ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall ne woon ci daara ji allahuma arham ibadaka wa bilaadak wa sallallahu wa ala ali rasul wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu